jaajëfal nañ ñu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañ ñu koy topp ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu ko door rek 1400 mètres carrés ci xayma toll ci 1 milliard de francs CFA nag la ñu joxoon kii di Farba Ngom kii ko ko jox nag nee na eh, kii di Macky Sall nag moom moo ko daal di jox moom Farba Ngom kii di Mamou Saleh mi nga xamante ne rek moom la joxoon ñaari terrain yooyu mu toll ci 201 mètres carrés nag ñaari terrain yëpp buñ ko bolante muy 1400 mètres carrés ci xayma toll ci un milliard de francs CFA nag la ñuy jagleloon kii di Farba Ngom kii ko joxoon du kenn rek ku dul Macky Sall ci wetu école ci wetu école des officiers de la gendarmerie nationale di EOGEN mu nekk révélation boo xamante ni rek le quotidien yor yor moom moo ko daal di xamle ba tey bu ñu sukkandikoo rek ci sunu nattangooy journaliste yi lu toll ci juróom-ñaari parcelle yoo xamante ne rek 200 mètres carrés la ci TF 7105 NGA yoo xamante ne rek joxoon nañ ko kii di Farba Ngom ne nañ nag parcelles cent numéro 196 197 117 118 119 120 et 121 mu nekk nag yëpp yoo xamante ne rek ci zone stratégie ba nekk ca cité avion la ak fu soriwul lool nag li nga xamante ni rek moom mooy géej gi ne nañ nag 200 yi nga xamante rek ñu ngi ko doon jaay nag ci xayma entre jàpp 150 de francs CFA mu nekk nag révélation boo xamante rek dal nañu koy def ne nañu sax ab ancien directeur général bu police nationale bu parlementaire yi ak yeneen membre alliance pour la république jot nañoo bénéficier wu nag ci boobu les terrain ñu di PT NGA moom ancien Sall Mahmoud Saleh mi nga xamante ne rek moom moo nekkoon nekk 201 Y 795 ak 253 mètres carrés yoo xamante ne Y 793 euh, ci titre foncier bu 526 nga xamante ne rek moom moo wetu rek aéroport Léopold Sédar Senghor bu ñu ko foofu nag dañu addu rek wax ci Sidi Diop mi nga xamante rek fas nañ ko jugé ni ki tey jii tribunal flagrant délit moom Sidi Diop nag la mu daal di xamle moo di oto bi bi nga xamante ne doon na ko dawal nag ca diwaan bu Gàmbi la jógee ko moom kat mi nag dina dinañu ko jugé ni ki tey ci altine ji yemook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août ci atum 2024 fi nga xamante ne rek moom mooy ca flagrante yi lañ koy toppee nag moo di dawal ab oto boo xamante ne amul assurance amul nag permis de conduire ba noppi rek ñu immatriculé ko foofa ca diwaan bu Gambie ginnaaw bu ñu gisee ne rek dafa daal di expiré wu moom ci jëmmi boppam rek placé woon nañ ko mandat de dépôt ki ko ko placé woon di procureur de la république niki talaata bee ñu génn ginnaaw bu ñu ko tegee loxo nag niki altine bee ñu génn rek ci ab contrôle bi nga xamante ne doon nañ ko def nag ci yoon wi ci la daal di gis ne rek kii di Sidi Diop moom ci jëmmi boppam amoon na permis national boo xamante ni rek ca Gambie uh, lañ ko ko joxe waaye nag dañu ko daal di sàcc ci mbir mu nu mel nag enquêteurs yi daal dinañuy laaj Sidi Diop naka la def rek ba moom nag ab oto boo xamante ni rek dafa am permis international te amul permis national moom nag la mu daal di xamle moo di Gambie lañ ko jaayee boobule oto muy kaddu kii di Sidi Diop waaye gendarme yi nag daal dinañu ñëwaat rek ci charge yi nga xamante ne rek moom lañ fas yéene teg ci kawam ne nañ nag même bu fekkee ne Gambie boo amee permis international pour ñu jox la ko faw rek nga am permis national comme Sénégal nu muy doxee du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaayi xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun am yeneen i xibaar